wa man tabia hadiyahum waqtafa atharahum ila yawmi diini asalaamaaleykum wa rahmatullahi ñu ngi dellu si waat tey di ànd ak yéen di jël kàddu yi kàddu jàmm la ak kàddu jottali jottali jottali su Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ne na ngeen di jottali ba yawmal qiyaamati ñu ngi ñaan yàlla yal nañu yàlla booleel kàddu yi ca ca jottali jottali yooyu ñaan yàlla rek sunu réew mi di Sénégal yal nañu ko yàlla taxawul ndax nag ñu ngi ci pànt suñu yàlla téewul ci kàmb gi lañu jëm waaw ñaan yàlla rek ci mbaaxam yàlla nag ma suñu bàyyi Sénégal booba ba tey mag ñi fi jaaroon li ñu fi defoon ba tey jeexit yaa ngi fi de yal na fi sax yi xew léegi nag ci jamono bi ñëpp a ko gis waaw booyal nañu làmmiñ yi xol yi tëju na bëgg-bëgg yi ñoo ñoo teg tànk waaw lépp lépp daal na neex rek te sotti te kenn du wax nag dafa jot yenn saa yi nga xam ne ñooy rek kaddu diine yi ñu jog wax sama maas yi soo waxul ko waxul nag yaa tooñ wax ji rek mooy dañu jéem a war dellu siwaat lo ay neex nga wax lu neex waaye nga solo lu neex kenn kenn respectul kenn ak lii ci ay wax yu ñaaw yoo xam ni kenn mësu ko dégg Sénégal bu ko mësaan wax sax da ngay làqatu léegi ci kaw lañ koy wax te doo ci dégg du làq dara e ñaan yàlla rek ci weer yu ñu nekk muy weeru muharram di weeru rëy ndax mooy weeru hijra hijra mooy bi Seydina Muhammad nekkee ci Makka ñu lëjal ko yëf yi dem ba ba pante nii yenent bi ni gaa ñi nañ leen daw ñu wut fu ñu làqu ji ak suñu diine waaw euh, hijra bi ngeen dégg gàddaay gàddaayu làqu la war daw ak sa diine nga làqu ji dañu làqu dem ma wane yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa am lu mu wax dafa ni fa man kaanat hijratuhu ila allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila allahi wa suli wax ju rëy dafa am ñu loon gàddaay ay commerçant am ay clients yu gàddaay ñu gàddaay ndax su sa client demee fooy commercer ci ñoo xam ne naan labat ay jigéen ay ay njagamaar ñu dem ah il faut ñu dem gàddaay ak ñoom gàddaay yu bare lool ay ju gàddaay yonent bi wale ni leen nag ku gàddaay ngir leneen lu dul yàlla ak yonent bi rek sa gàddaay lee mu jeex su dee alal day jeex su dee taar day jeex su dee lekk gu neex day jeex wax ne am na ñaar yoo xam ni du jeex moo ñi gàddaay jëm ci yàlla ak sidna Muhammad gàddaay googu na yenn ci yàlla boole dafa jot léegi ni ñi daw seen diine làqi ko gàddaay sëriñ Abbas nag radiallahu anhu suñu way jur moom dafa gàddaay yoon ci weer wi dafa daan wone gàddaayam dañ daan dem ci dëkk bu ñoo ngiig ngiig fall falee ca gannaaw sàkkal daan nañ fa am ñeenti fan yoo xam ni lépp gàddaay la mooy alquran sunna waxtaan ci tawxid na la ñuy ragalee yàlla nan la ñuy jaamoo yàlla sëñ Abbas dafa daan daw ci weer wi ñu dem ci ngiig làqu fa dafa ñeenti fan di jàng alxuraan di def naa danaan def ay thèmes yu bari ñu koy ñu koy fay traité genre université la woon sax ndax du ñu mësaan def ay doc waxtaan lan mooy nit nan la woon nit dundee ba tedd ci kaw suuf soo fi jógee foo jëm soo duggee ci bàmmeel kan nga fay fekk gannaaw bàmmeel lan la ay questionnement yu yéeme di <laughs> ñi dañ ko fàtte euh, li tax ma ñu tax ñu def conférence bi nii tey dañu bëgg wax rek ni sunu sunu xew-xew boobu la muy réy répp de ñun dañuy topp ndigal ndax ñun ay républicain lañu ñun dañuy def médecins yi Sénégal ak président ñi nga xam ñoo yore réew mi xam luy médecine ak corona bi fi nekk nii li ñuy wax rek la ñuy def mooy dañu bàyyi dañuy bàyyi ziyaara bu beneen bu yàlla ñëw ak jàmmam incha allah loolu ñuy bëgg a yëgal taalibe yi wax ne ñu leen ziyaara bi dañ koy bàyyi incha allah ba déwén sa ba yàlla yàlla na fi feebar bi jógee jógee sama rak di sama xarit ñu rëkk ci man te du ma rëkk sëriñ Papa Sall ca ci Louga daanaka wax na wax ji parce que ziar bi dañ ko bàyyi foofu waaye nag daañu def ziar bi ci kër yi dog ñu fa daan def yëpp sëriñ Papa Sall joxe na ko nañ koy nañ koy def yëpp wax na ko ni alxames ajjuma samedi dimanche yëpp kenn ku naa ñëw yëg daal am na lu ñu la sas nga def ko sa kër dimanche nag ci wetu midi ñu toog ku ne toog sa kër ji def ñaan yi. parce que léegi avec les moyens technologiques mën nañu def yooyu ci WhatsApp ñu ngi koy ñaan nit ñëpp ñu bàyyi xel ni bàyyi nañu ziar bi dajaloo bi ndax dajaloo bi mënul nekk ñeenti fan lay nekk nit ñi dañuy bare sa mbaxloo boobu duñ ko nangu mukk ndax ñun Sénégal jàmm rek la ñuy bëggal Sénégal ñu ngi ñaan itam képp koo xam ne nga nekk nitu mbooloo nga bàyyi xel ci loolu ni daje bi day indi musiba ñi ko wax ay médecins la ñu ñoo ko xam nañ nañ leen nañ leen dégluwaay ci jaamu yàlla la boobu euh, ci gannaaw loolu kàddu gi rek mooy sénégalais ñan yàlla yan nañu yàlla taxaw yan nañu yàlla delloo si xel yi delloo si xalaat yi delloo si itte defal ñu la muy defal ay gaayam mooy mu xëcc leen yóbbu leen ci tawxiid mooy ragal yàlla te wéetal ko ragal yàlla wéetal ko nag mu amul senegal senegal koo gis mi ngi am benn ku mu làq ci wetam mu nekk yàllaam bu ndaw ku yàlla bëgg ko de benn nit yàlla nee na yemal qiyaamati nit ñëpp dañuy dem àjjana بان وين كو غلطي سوف نحن سوني بسم الله الرحمن الرحيم خموكو كو موي يالا موم كو نيومول لا بالنا لا الحمد لله رب العالمين من ني داين وار سانت يالا ني اني بنال بن الرحمن الرحيم ني كو يوم القيامه وسي يالا نون لاي بالي نيب ني ني غناو ني بوكالي يالا بوكالي يالا دو ديم اجنا موك يالا سيرن مي موي سما يالا سيرن بي لا ياكار سيرن مو يوب اجنا سوكو ديفي saraxel Sénégal wurus doone àjjana doone àjjana yàlla ko inna allah la yaxfiru an yushraka bihi wa yaxfiru ma duna dalika li man yasha kon mooy mbokk yi man gannaaw sama bopp laay wax de si sama bopp laay ñaax di leen ñaax ni delluwaat ci yàlla ragal ko te jaamu ko te xam ni bés gi ngi ñëw boo xam ne kenn ku nekk ak sa kër doo fekk kenn kenn du la fa fekk yow sa jëf rek fekk te jëf yi nag mooy julli ragal yàlla yi def yu rafet yi bàyyi yu bon yi ñuy defante moom rek nga fay fekk soo defee léeg-léeg doo السلام عليكم ورحمة الله كم نيكو سيرين بي واخي رك موي زيار بي تبارك الله ليغا خامني باغ نكو دالي ديف ليك ليغي بوبا نون خالي يو توتي لاني وايي تي خلات بو رافيتام اك تي ديغ جامونوم موني رين دال ناخ بو نيو وون نانكو ديف ني ديف كو رك ناخ موي سونو كيليف موم ناخ فان بوبا با ليغي نين نياغي لاكتي dañu leen a ah, ñemewuñu yëkkati kàddu te waxul ndax mën nga yëkkati kàddu fekk du kàddu ba mu bëgg eh, dëgg la bëggoon nañ ko waaye ñemewuñu ko wax waaye bu ñu yàlla dimale alhamdulilah ba mu gën ñoo dégg mbir mi mu ni daal comme que jamono deme na nii eh, te li am solo mooy xol li nga xam ni moom la doon def at mu ne mu ni ren daal na kenn ku ne defe ko sa kër te du tee la nga bëgg nga am ko loolu yëpp daf ñuy moytuloo li nga xam ni moo xew ci jamono ñi ngi ko ciy sant ndax bu ñu ni woon ay ca ñu ni ay ca waaw ci loolu ñi ngi ko ciy sant e tabaarakallahu ñu xamee ko noonu kenn ku ci ne na nga ko daan defee ca ngiig ca kaamil yaag zikkar yaag def yu rafet yaag joxe ñam joxe fu ne kenn ku ne fa nga ne nga defe ko ci sa kër yàlla dana ko nangu